بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu boroom aji màgg ji te kawe noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne sunu boroom rek mooy ki ko jagoo noo ngi julli di sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dëkkee dotti waameem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain noo ngi ñaan sunu borom xusni tawfiqi mu boole ñu ci jaam yi nga xam ne yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna axsana yal na yàlla boole ñu min attabiina lissaxaabati bi ixsaanin ila yawmi ddin dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu waay gàtt-gàtt àlloo war a xam ni saxaaba ya ñooy nit ñu piir ña seeni ngëm yàlla mooy ngëm yàlla yu piir ya ñooy taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu njëkk ya lépp lu ñu xamul woon ñoom bi bi jumlatihim loola jàppal ni bokkul ci diine yàlla ji képp kuy jaay bëgg yiw ñoom ñoo la gënoon a bëgg yiw waaye képp kuy jaay baax ñoom ñoo la gënoon a baax saxaaba yooyu waxtaanee seen dund mbokk yi am na solo lool ci joyantiwaat xolub aji gëm li waral loolu mooy yoon wi nga xàll ñoom ñooy nit yi ci njëkkoon a jaar li waral loolu mbaax gi ngay jaay ñoom ñoo la ci ëppale woon fuuf li waral loolu cellaange gi ngay jaay ñoom ñoo la gën a sell fuuf li waral loolu mooy ak melokaan wi nu mel ak melokaan wi nga mel te sa xel bi ngi nekk ci buuxanteeg ñoom ci buntu buntu ajana pour bëgg a tàbbi kon war ngaa xoolaat sa bopp bu baax ndax koo xam ne aw yiwam fii la toll ay safaanam nii la tuutee ngërmandel sunu borom nii la dëppoo ci kawam te nee nga lim bëgg nga bëgg fa mu jëm fa nga bëgg a jëm ba pare meloo nam mel maa ngi jàpp ne yaa ngi bëgg nag lu jafe kon nag dar suy mel nii mbokk yi day nekkaat soñu ñeel ñu waaye day nekkaat ñaax ñeel ñu waaye day nekkaat ak jubbantikuwaat ak joyantikuwaat ñeel ñu dellusiwaat nañ tey ànd ak keneen ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xaarisata ibni noman xaarisata bini noman nga xam ne léeg-léeg ci bind yi danaa koy junjuturam di joxe ay misaal ci moom ذاك الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في الجنة الله أكبر waaye ngi joo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg na ko muy jàng alquran ci biir ajana mbokk yi loolu rëy rëy rëy rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg na la baatuwaa ji muy jàng quraan ci biir ajana saxaaba ya mbokk yi nii lañu meloon koo ci jël rek da ngay foog ni kii moom jël na ndam la te dañoo bari woon lool mbokk yi ab lim lañ woon woo xam ni yàlla rek xam nu mu toll tey jii daanaka da ngay lim lu ëpp nangami junni ci ay saxaaba te yow doo mës a dégg seen tur seen tur sax mosoo koo dégg faf dinaa joxe misaal ci téere bu mel ni al isaabatu fi tamyizi saxaaba di téere bu mag boo xam ne mat na juróom-ñeenti mu jallat alxaafid ibnu xajar moo ko taalif ci xam ñan ñooy saxaaba ya gis nga waxuma la seen bariwaay ba ndax wax naa ko fi gayra marra waaye gis nga waajoo xam ni turu waa jii rek tey jàpp na ni bu ma ni woon kan ci saxaaba yi ngeen xam ku tudd xaarisata xaw tuuti kon rek bu ngeen tuddee kii nga xam ne yàgg naa tudd turam tey duñ mën a tuddaat keneen boo delloo ci téere mel al isaabatu fi tamyizi saxaaba ca mujallad bu njëkk ba ca page yu mujj ya ah lim na fa lu ma téeméeri alxaaris ak juróom fukk ak juróom allahu akbar koo xam ni turam alxaaris la alxaaris ibni nangam alxaaris ibni nangam alxaaris ibni nangam lim na ca téeméeri alxaaris ak juróom fukk ak juróom xoolal boobu lim mbokk yi ni mu baree ci koo xam ni wi- wenn tur wi rek nga xam ñoom ñoo bokk la seeni tur ndax moom dafa liggéey téere bi liggéey bu rafet mooy képp ku sa tur tàmbalee alif mu dugal la fee ca alif ya ku sa tur tàmbalee ba mu dugal la ci baa yi noonu la ko tàmb ba téere bi jeex gis nga xaarisata rek nga xam ne alif amul alif ak laam lim na ca lu mat fukk ak ñeent kii moo leen fukkeel ak juróom boo demee ci alxaaris ci la ëndaale waa jooju ma leen doon junju ci wàllu faj muy alxaaris ibni kalda am na ku jamononte woon ak yonent bi salaa sallam ku ñuy wax alxaaris ibni kalda boo demee ci tur yooye turam ma nga fa alxaaris ibni kalda ku yàlla mayoon la ci wàllu faj ku yàlla mayoon la ci wàllu faj dañuy wax ne léeg-léeg saxaaba yi sax bu ñu mosaan a tawat yonent bi daf leen di wax dem leen ci alxaaris ibni kalda am na ñu wax ni bokkuloon ci saxaaba yi am na ñu wax ni jotul woon a tuub am na ñu wax ni ahankay ci saxaaba yi la bokkoon waa jooju moo doon dénkaane naan bu fekkente ni da ngay wut soxna boo mënee am gone moo ca gën soo reeree ba noppi loolu bi muy faata la ko doon dénkaane boo reeree ba noppi lu gàtt gàtt gàtt gàtt na nga dox ay jéego soo añee ba noppi lu gàtt gàtt gàtt na nga tëdd soo yëgee ni feebar nga bu fekkee lekk ak naan mën na laa faj ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan mooy gën nga jël garab moo doon dénkaane dénkaan yu am solo yooya maa ngi yaakaar ni ibn al qayim rahimahullah mi ngi koy tudd jot bon nabawi ci buntu faj boo dikkee ci xaaris ci ngay fekk waa jii di al xaarisata ibni noman nga xam ne daanaka moo ca mujj kenn rek a topp ca moom mu jëlat bu njëkk ba jeex xaarisata ibni noman kenn la woon ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam biddiw la woon boo xam ni bu leer naññ la woon ci kaw asamaan yi ngëm yàlla waaye jëmm la woon ju sell joo xam ni ak sellaayam ak mbaaxaayam yegg na ci mu gis jibril ñaari yoon gis na jibril alayhi salaam ñaari yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg na ko muy jàng alquran ca biir ajana jibril ñëw na ni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kii day ci ñi yàlla kontaan ci moom la bokk allahu akbar benn bis benn bis yonent bi dafa toog ak jibril na xadis bi ñëw na ci ay riwaayaat yenn yi dinaa ko tudd yenn yi mooy bii may bëgg a wax nii yonent bi dafa toog sallallahu alayhi wa sallam ak jibril xaarisata ibni noaman nee na ma romb leen gis leen ñoom ñaar ñépp waaye dafa mel ni dañoo nekk ci soxla ma ne ah naa leen tàyyee nuyu di leen déranger naa dem sama yoon bi waa ji jàllee jibril daan ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii de moo ne bu nuyoo woon dinañ ko fay yoon wi benn yoon wi nuyoowut weneen yoon wa dafa nuyoo ba mu nuyoo jibril fay ko moo tax ñu ni jibril fay na ko nuyoo moom weneen yoon wi dafa nuyoowut ndax jàpp ne yonent bi dafa ne ci soxla jibril ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa ji de moo ne bu nuyoo woon danañ ko fay yonent bi ni ko da ngaa xam kii mu ni ko xam naa ko kii mooy xaarisata bnu noxmaan bokk na ci téeméer yi nga xam ne am riwaaya bu ni juróom-ñett fukk yi nga xam ni keroog Uhud ñoom dañoo dëgëroon ba dawuñu yàlla nee na garanti naa seen wërsëg ci biir ajana allahu akbar ma koy xoolal yi manaqib xoolal yi fadail xoolal yi mbaax mbaax xoolal yi xasanaat te kiñ ko wax ci moom tey la gën a sawar tey la gën a góorgóorlu tey la tii gën a tiit ci yëfi boppam tey la gën a tiit ci fan lay mujj saxaaba yi bii de xaarisata ibni noman radiallahu anhu misaal la comme ni ko borom xam-xam yi waxee ñeel bépp ndaw ak nit ku nekk sax xëy na da di woon ndaw moo tax ma ni bépp ndaw ci jëflanteeg say wayjur kéemaanu yàlla la woon ci fonk wayjuram rawatina wu jigéen woon nag loolu mat a bàyyi xel la kéemaanu sunu borom la woon ci fonk way juram rawatina wu jigéen wa aïchata radiallahu anha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na benn bis dama tëdd daal di gént te xam ngeen gént ak yonent dëgg la maanaam gént ak yonent bokkut ak sunu gént ñun da ngay gént yeewu di xool ndax am na wala amul ab yonent li am ak lim gént ñaar yooyu benn lañ Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dafa tëdd ba guddi mu gént tàbbi biir ajana kon mel na ni dugg na biir ajana ndax gént ak yonent moom dëgg la mu nee na yonent bi nee na fa samiatu sawta qaariin yaqra ma dégg benn waay buy jàng alquran di ko liital liital yoo xam ni mi ngi neex xeeti neexit boo xam ni ma ne tekk taxaw dal di koy déglu bi ma ko dégloo ma ni ko man haada waaw kii di jàng alquran ku ma qaalu xaarisata ibni nu'man nee na ñu daal di tontu yonent bi ni ko kii di jàng alquran ci biir ajana de mooy xaarisata ibni nu'man Aïcha mu ne yonent bi ni daaka daaka albirru kadaka albirru beneen bi mu ni dalika albirru yonent bi saa salaam mu ni ah baaxe say way jur de lii dong la mën a yóbbee nit baaxe say way jur mën naa yóbbee nit ba lii Aïcha nee na ah wa kaana abarra annaasi bi ummi ci ñi gën a xam ci ñi gën a fonk seen yaay ci àddina waa ji bokk na ci muy xaarisata ibni Nu'man mbokk yi xoolal yi mbaax mbaax ak yi nga ne ndekete bokk na ci li ko ko may mooy toppatoo way juram ak sonn ci way juram te loolu bind bu am solo la boo xam daañu ci def tuuti ki yaatal insha allah ndax tey nit ñi dañoo jàpp ni bu la yàlla baaxee ngay góorgóorlu ci diine am yenn yi xam lenn la rek jàpp nga de yaa sut sa yaay gis nga sa yaay ak sa baay addina du mën a mel nenn ba nga sut leen du xam-xam ba du man-man ba du am-am ba du lenn ci loo xam ni ay maqaamaat la yoo xam nit ki daf koy am ba mu saf ay way juróom gis nga yàlla ku kéemaane la nu muy waxee gis nga doomu aadama marta ba ju mu yore ci ay ndombay tànk yàlla mu ne ko waxfid lahuma janaha dhulli min arrahma sa ndombay tànk yi la bëgg nga sànni ko fële wàcce sa bopp ba ci suuf allahu akbar loolu la aaya ji teg waxfid mooy rësal waxfid lahuma janaha zull gis nga laafu torox lu laa bëgg nga ni ko rës mu wàcc ba ci suuf ci say wayjur min arrahma te fekk yërma li yërëm leen moo tax nga di ko def xoolal doomu tànk boo yore nag xatta walaw kunta amira almuminin xatta walaw kunta aliman rabbaniyan xatta walaw kunta ma kunt imaamu dahabi nee na waa ji shahida badran fekkee na badar wal mashahida ak xew-xew yi nga xam ne ay xarala yo saxaaba yi doon ko dem mu ne wala naalamu lahu riwaaya xamuñ nag ab xadis bu mu solo wa kaana dayinan xayiran barran bi ummi ku amoon diine ngi allahu akbar mbokk li shahadatu aalim baram xam-xam moo seede loolu mu ni ku amoon diine ngi mu teg ci ne xayiran waaju baax a ngi barran bi ummihi waaju baaxoon ci yaayam a ngi nii Aïcha nee na saxaaba yi yonent bi daf ci amoon ñaar ñoo xam ni ni ñu kéemtaane woon ci toppatoo seeni wayjur kenn melul ni ñoom ñu ne ko kan ak kan mu ne xaarisata bni Nu'man ak Othman ibni Affan Aïcha nee na ñaara ngi ñoo xam ne ci saxaaba yonent bi pour nga gis ku leen dab ci toppatoo sa yaay jafe na ñu ne ko kan ak kan mu ne xaarisata bni Nu'man ak Othman ibni Affan Othman moom fan la toppatoo yaayam tolloon Othman nee na maa qadartu an ata'ammala wajha ummi mundu an aslamtu nee na ormal sama yaay dafa yeggoon ci keroog ba ma tuubee laa gëj a xam sama xar kanamu yaay nu mel du ma siggi xool ko nee na bu may wax damay sëgg ci suuf keroog ba ma tuubee laa gëj a xam sama xar kanu yaay kanamu yaay nu mel nee na dama ko respecté ormal ko ba même bu may wax ak moom damay sëgg ci suuf du ma ko xool. allahu akbar allahu akbar mbokk yi nun nun nun fu ñu yegg ci toppatoo suñuy way jur nun nun fan lan yegg ci toppatoo suñuy way jur Ousmane mi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa ñëw Ousmane dafa ñëw di jóor alal ji di jóor di jóor di jóor di jóor ba alal ji nekkub jal yonent bi tiim ko yëkkati ñaari loxo yi teg ci kanam gaa ngay bëril bëri làmmiñ waa ngay tudd yàlla bañ yaa ngay feeñ mi ngi kontaan ba saxaaba yi xam ni ah kontaan te gaa ngi wër ci xar kanam gi mu naan maa darra Ousmane maa amila baada al yawm Ousmane yow bu yeboo nga xam ni bis ni ki tey loo defati neex na suñu borom xoolal boobu shahada mbokk yi xoolal bii shahada te Ousmane nee na fii la yeggoon xaarisata nag moom nee na dama ormaaloon sama yaay ba bu lekk jote du ma ko bàyyi mu lekkal boppam mu ni maa ko doon tibbal di ko si xal mu ni man maa doon tibbal sama yaay di ko si xal yemuma ci loolu nee na sama yaay musuma wax xam nga léegi da ngay wax ak nit nga ne ko eh kaay boo demee defal ma nanga mu ne ah loo wax fekk déggul li nga wax xaarisata nee na sama yaay su waxee ba noppi su ma déggul la mu wax perte naa xanaa keneen wax ma ko waaye du ma ko laajaat gis nga bu ko yaayam nee kaay mu ñëw mu ne ko xaarisata nangam ak nangam nee na lam jot a wax moom lu ma ci rëcc loola ku ma ko nittaliwut perte naa ko ndax bu soobee yàlla du ma ko ko laajaat xaw ma lu may def nag waaye du ma ko ko laaj allahu akbar mu ni ah bokk na ci yi mu am fa kaana yutcimuha bi yadihi walam yastafhimha kalaaman qat tamuru bi xatta yasala man indaha baada an yaxruj bu dee am na nit ku fa nekk wala mbooloo day bàyyi ba génn mu ni saa yow dégg nga li sama yaay wax léegi kooku nettali ko ko waaye bu dul loolu nee du ma dellu siwaat di ko ko laajaat parce que nee loolu ñàkk teggin la ndax ba muy wax dama ko waroon a déglu allahu akbar balaa may continuer mbokk yi xool leen ñii nga natt ko ci ñun tey ak fi ñu yeggoon ci ay martaba ak ñun meloon ci siin maanaam mbir yi nekkut ay mbiru ay nettali rek kenn ku nekk jug dem ñu mel dañu doon occupé temps bi déedéet maanaam dafa mel ni dars yu mel nii dañuy dugal suñu xol yi ci biir ay laboratoire xool ba xam ñun fan lan toll da ngay testé sa bopp mel ni kuy def examen di xool te jàpp na ne def test ka la koy defal da lay raw ku lay defal test da lay raw mooy saxaaba yi ñu war a defal test bi ñoo ñu raw fuuf te xoolal ñoom fi ñu tolloon ñoom ci fonk seeni wayjur tey nga gis ñu bare bare bare bare ñoo xam ne seeni wayjur gërëmuñ leen laa musibata fi dunia aadam min hada sàggal ba sa wayjur gërëmu la fekk nag fekk nag ci lu neex yàlla laa wax waaye sa wayjur nekk ci lu neexul yàlla ba nag bëgg nga nekk ca nag bu bëgg laa gërëm ak ñàkk gërëm kooku moom sa yoon néew ca loola ndax loolu Saad doon wax Ibn Abi Waqaas naan boo yaay ji boo yoroon téeméeri bakkan muy dee benn par benn ngir bëgg ma bàyyi diine ji da ngay dee ba jeex tàkk waaye du ma la tinu wax na ko dëgg xaarisata ibni Nu'man kéemtaanu sunu borom la woon ci joxe alalam fi sabilillah joxe alalam joxe bakkanam mbaa xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam néeg yu bari ci ay soxnaam xaarisata ko ko may allahu akbar xaarisata day toog ba mu yàgg ñu ne ah démb de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may nañ ko diw xam ngeen yonent bi amoon na ay soxna yàlla daganal ko ko xaalisatan laka min dunil muminin xaarisata dafa dégg ne yonent bi takk na safiyatu mu ni soxnaam nañ génn suñu mbaar mi jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen yonent bi comme ni ma koy waxee amul woon kër comme suñu kër yi ni mu mel xam da ngay tabax mu wër nga miire nga ne fii mooy kër gi fii mooy buntu kër gi déedéet ay xujuraat la amoon néeg fii néeg fee néeg fee néeg fee néeg fële ñu wër jàkka ci xaarisata day jékki-jékki ba mu yàgg mu yëkkati benn kër jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dem naa ba rus ba rus ci kër yi nga xamante ne xaarisata ak ma koy bàyyee mbokk yi xoolal loolu kër yooyee nga xam ni yàlla mi ngi koy tudd ci alquran kër yooyee nga xamante ni fala alquran doon wàcc yàlla nan wadkurna ma yutla fi buyutikunna ah ndeke waa ji moo ko doon jox yonent bi ndax yonent ba mu yegsee ñaar ñaari gonoy jirim ya nar koo may fa mu samp jàkka ja dinaa ko jënd bi saman fa mu samp këram bi saman ca la bokk waaye lu ko weesu rek xaarisata yàlla daf ko mayoon muy ku am ay teere yu jege jàkka ji ay teereem daa jékki jàkk ji mu ne dafa jékki-jékki rek ne yonent bi fabal bii jékki-jékki yàgg mu ni fabal bee am na riwaay dafa jékki-jékki yàgg mu ne yonent bi fabal bii fabal bee maa ngi ciy bëgg a sonn fabal lépp ma tuxu fi mu ne tey jii ñooy wax ak yéen këri xaarisata ya boo demee ma nga ca biir jàkkay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam keroog bi yonent bi faatoo ba tey mi ngi tolloog junney at ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak lu topp ndax gàddaay gi laay wàññee wàññeewu wàññeewu ma ci faatu gi laay wàññee wàññeewu ma ci tàmbali gàddaay gi ndax ñi ngi ci fanweer rek juróom kon ñaar fukk ak lu topp keroog joojee ba tey ak lu ko jege wala boog sax ci jamonoy saxaaba yi nga xam dem nañ ba dugal néeg yi ci biir jàkk jamonoy Walid ibn Abdul Bari su la neexee daal nga ni junni at fi mu nekk nii junni at a ngi nii ak lu teg yoo xam ni këri xaarisata yooye ay milliards yi milliards yi nit dugg nañ ci jàkka ja julli ca te ku ca julli insha allahu dana ca am tiyaaba moom xaarisata ku ca julli rek dana ca am tiyaaba ñaata milliards yi nit ñoo fa jullee te dana des ñu fay jullee dana des ñu fay jullee ba keroog malaaka muy wal bëfti bi xaarisata ibn Nu'man keroog bi nga xamante ni jullit ñi ca Madina boobu fekk lislaam wasaaroogul yonent bi di woote ci aj gi mu dajeeg ña nga xamante ni ñoo jóge woon xas xasraj gaa yi xasraj ya jóge woon madina yonent bi wax ak ñoom sallallahu alayhi wa sallam ca bayatul aqabati al ula ak bayatul aqabati thaniya nga xam ne mooy ba ñu siñanteeg yonent bi danañ la jàppale tuxusil madina nga xam ne nettali naa ko fi ay marat ah sunu borom yabal Musab ibn Umayr mu dem Madina war leen a jàngal bi yàlla dogalee Musab ibn Umayr yegg si ca la Xaarisata ibn Nu'man gindee ko tuub dugg ci lislaam gis nga Xaarisata ibn Nu'man nee nañ bi mu duggoo ci lislaam gën naa am mbégte keroog bi yaayam duggee ci lislaam muy Jaadata ibn Ubayd Jaadata binti Ubayd Jaadata binti Ubayd ndax dañuy wax ni Xaarisa dafa fonkoon way juróom wu jigéen lool lool lool way jur wu jé fonk gu jéggi dayoo suñu borom dogal nag mu tuub am problème parce que xam nga ni soo fonkee sa way jur bëgg koo baaxle bëgg koo baaxal defal lu baax nga tuub sa way jur tuubut da ngay am jafeñ-jafeñ waaye ci yàlla subhanahu wa taala ndimbal li mu koy defal way juróom wu jigéen daal di tuub muy jaadatu binti ubayd jaadatu binti ubayd kere bi mu tuubee nag dañuy wax ne xaarisata am na mbégte moo xam ne yàlla rek moo xam ne mu toll ndax loolu bëgg-bëggam la woon bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam gàddaayee jóge màkka na ñëw madina nag waa lansaar yëpp di kattandu yonent bi salallahu sallam gis ngeen ci ngeen doon gis ah mbir ya xewoon gars yi di ko teertu di wax ay wax di ko di ko di ko di ko di kontaan ci moom di ko way salallahu alayhi wa sallam ba yonent bi dugg si madina xaarisatin ma gën a amaat mbégte lan moo yokk mbégte ma mooy yonent bi mi ngi dal ci bani najjaar ci kër ci kër abu ayub al ansaar yi te bani najjaar giir googu ci la xaarisata bni noomaan bokk te abu ayub mbokkam la te it ma nga dëgg ca pegg jàkka ja maanaam dafa mel ni kon yonent bi abu ayub la ñëwal moom kese waaye ñëpp la ñëwal di waa koñ ba nee na ma am da gën a dolli mbégte ndax nee na li ma gën a bégloo mooy damaa xalaat ne yonent bi du gëj sama kër tey may du ma gëj këram allahu akbar xaarisata nee na loolu taxoon ku bari woon ay tànk la kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jàng ci moom ak roy ci li nga xamante ni moo nekk ci moom ci ay jikko yu rafet nee na loola sabab la ci yonent bi dem ba ràññee ko yonent bi bëgg ko lool ndax xam na ni borom xol bu set la yonent bi bëgg ko lool ndax gis na ni ku am bañum rus la yonent bi bëgg ko lool ndax xam na ni ku dëggu la xaarisata ibni Nu'man ay taxawaay yu am solo yu mu def bokk na ca keroog bi nga xamante ni Fatimata doomu yonent bi saa salaam Ali takk na ko bi ko Ali takkee fekk Ali mbaar moom am ndeysaan ma nga ca ajag-jag-jag bi ko xaarisata déggee dafa yëkkati meneen mbaar xam ngeen comme nee na dafa am ay teere yu wër jàkka yéen sa salaam dafa yëkkati meneen mbaar ne yonent bi fab ko jox ko sa doom ji mu seetu moog borom këram te moom fab ko amut fab ko rek mooy jëlal ma may la allahu akbar mu daal di ko koy jox ngir Fatima jege gi mu jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi yonent bi takkee Safiyata binti Huyay ah yonent bi mi ngi ko wàcc ci mbaar moo xam ni Xaarisata bni Nu'man moo ko ko jox kon daanaka boo seetloo yiw réeréeréy def na ko keroog gazwatu badrin bokk na ci jàmbaar yi nga xam dañ leen di limaale ci ñu def ay jaloore ci keroog badr ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ay yëf la yu mu jot a def keroog xunaynin te xam ngeen ni yow ma xunayn gis ngeen ko ci alquran xeex boobu yàlla tudd na ko de xeex boobu xam ngeen oxod yeneen xeex yi dañ leen di junj rek dañ leen di junj yi ci ëpp dañ leen di junj ah waaye xunaynin moom taraay baa tax dañoo tudd aw turam sunu borom ne wa yawma xunaynin id ajabatkum kasratukum falam tugni ankum shay'a allahu akbar xoolal keroog xunayn xeex la bu métti boo xam ni saxaaba yu bari dañoo daw dañoo daw ndax métti dafa dem ba dafa jéggi dayoo ci métti cent personnes wala quatre-vingts personnes yi nga xam ni ñoom moom dañoo taxaw ni moom dee rek maa gañe ca la xaarisata mi bokkoon moo tax jibril loolu la waxoon yonent bi salaa sallam même ne ko xam nga kii mu ne ko xam naa ko kay kii kay ci ña desoon ci ña taxawoon keroog Xunayn dawuñ ca la bokk mu ne yàlla nee na man maa garanti wërsëgam ci biir ajana moo tax Xaarisata ibn Nu'man nee na damaa gis jibril ñaari yoon nee na benn bi dama koo romb ba ñuy dem ca bani Quraysata nee na ma gis benn waay ma ne kii taxaw ak yonent bi ne dexyatal kalbi la nee na maa ngi seen yonent bi di digal saxaaba yi nañ préparé pour dem nee na ma romb ko muy wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ma ne kii dexyatul kalbi la nee na bi ma yegsee ma ne yonent bi sànq de romb naa la yaa ngi taxaw ak dexya yonent bi ni ko gis nga ki ma waxal mu ne ko waaw mu ne ko kooku moom mooy jibril alayhi salaam nee na beneen yoon bi dama leen a romb bi ma leen rombee ma daal di yàkkamti nuyoowuma nee na jibril daal yonent bi daal di wax ni xaaritata sànq de bi nga rombee nuyoowoo waaye jibril nee na boo nuyoowoo danañ la fay kon ñaar yooyu yëpp benn bu ci nekk xaaritata gis na ci jibril alayhi salaam xaaritata bi yonent bi faatoo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg ak topp ak ormaal yonent bi ak liggéeyal lislaam ji continué na ci jamonoy Aboubacar jamonoy Omar jamonoy Ousmane jamonoy Ali ba ci jamonoy Muawiyata ibni Abi Sufyan ci la faatu bal sax am na ñuy wax ni bokk na ci ñi ngàb ngàbboon seen jaas yi ñëw ci kër Ousmane doon ko wax ni ko boo ñu joxee ndigal fii la ñuy taxaw nekk say gardien di la garder. defe naa bu ngeen fàttaliku dund ak Ousmane bokk na ci li nga am na saxaaba yu ko waxoon loolu ñu bari dañ naan fan la saxaaba yi nekkoon bañ koy wër fekk bu leen fàtte ni saxaaba yaa nga fa waaye Ousmane mooy amir te amir lu mu la wax da nga ko war a def te amir moo ni bëggutu tuur deret Abu Hurayra ñëw mu ne ko demal sa kër dama lay garder mu ne ko defal li ma la wax maay sa kilifa demal Abu Hurayra delluwaat saxaaba yi bari ñi nga xam dañuy waxal Ali naan Ali ak ni mu jàmbaaree ak nangam nangam ay doomam ne fa bi ñuy faat Ousmane mu ne fa lu tax jógul Xasan ak Xuseyn bi ñu yegg see Ousmane dana leen seen kër bàyyi. deret buy tuur moom na nekk sans bés kese kese kese kese kese bëgguma beneen deret tuur waat kon jàpp naa ne saxaaba ya boo xamul ci seen dund dara da ngaa war a noppi waaye ñi xam seen dund xam nañ ñoom ban taxawaay lu ñu amoon ci ñii nga xam ne yonent sa salaam moo leen fonkoon lool. maa ngi la waxoon sànq ne la xaarisata bokk na ci li gën a fës ci dundam. mooy fonk way juróom fonk way juróom bu jigéen waa mbokk yi gis naa jibril ñaari yoon nuyu naa ko mu fay ma bii yoon nuyu ma ko waaye nee na boo nuyoon ma fay la yonent bi ne dugg naa ajana dégg la ngay jàng alquran jibril ni ko nee ko wërsëgam wa ca ajana yàlla ne na jekkal nañ ko ba teg ko ba noppi xoolal yii manaqib yépp mbokk yi ku ko am doy na sëkk waaye teewul nag lim gën a ràññee koo mooy baaxe ay way juróom nun ñi nga xam ne suñuy way jur ñi ngi dund moo xam baay kese moo xam yaay kese moo xam baay ak yaay fan nga toll ci toppatoo say way jur sualun ajib wa garib boo xam ni kenn ku ci nekk boo ko tontoo rek jàpp naa ni di nga yëg ni kàttan ñu ko ci yu bare bare bare bare gis nga way jur koo mën a doon loo mën a am foo mën a bokk noo mën a sant loo mën a xam ci xam-xam mbaa nga am ko ci alal loolu safat way jur borom bi li mu bëgg mooy waajoo xam ni ku oyof lay doon ci kanam way juram ku dégg ndigal sa kàddu du yëkkati ko mukk tiim kàddoom gis ngeen ko ci ay dars ak ay xutab yu jàll borom bi naan waxfid lahuma janaha dulli min arrahma borom bi subhanahu wa taala di wax naan wa qada rabbuka an la taabudu illa iyah bu jaamu desee moom am leen fayday bu leen jaamu kenn ko dut suñ borom bu def njekk jotee amal fayda bul defal kenn njekk lu dul say wayjur moo ca jiitu wa bil waalidayni ihsaana ñaata ci ñun ñooy ñoo xam ni ay sàmba àllaar lañ def ca àll ba defal bàyyi jàmbur moo leen gënal defal seen bàyyi moom laay faral di joxe misaal ci wàllu bidaak yoo xam ne nit ñi dañ koy def tax ngay rus nit ñi tax da nga cay ànd ak ñoom man damay wax ni lépp loo xamante ni ànduma kook sama baay nangul ma ko ko duma ko nangul bàyyi jàmbur mukk mukk mukk mukk mukk ndax bu amee kenn ku may nangul kooka laa koy nangul waaye da ngay gis koo xam ne defal bàyyi jàmbur ko gën a defal baayam da ngay gis koo xam ne defal yaayi jàmbur moo ko gën a defal yaayam te it nag bul fàttali ni nga ni lu rëy rëy rëy mbokk yi moo nekk ci toppatoo sa way jur mbaa xam ngeen ni sa morom mu la raw rek ñaar yi la la rawee ginnaaw ndimbalum suñu borom nag bu jàllee borom xam-xam yi def nañ benn synthèse ak benn gëstu gis ni góor day raw morom ma fekk ci yaay la ko rawee wala góor day raw morom ma fekk ci soxna la ko rawee te moo ne yépp nag ay jigéen la ñuy doon gis nga problème boo am ci àddina la problème boo am ci àddina la boo am kaso baag visa yaag tukki Europe baag liggéey baag entreprise baag ah mbay maag commerce baag lépp loo am ci xeeti problème ci àddina góorgóorlu ci say wayjur mën na laa sobe bi iznillahi subhanahu wa taala borom xam-xam yi dañuy wax ni bokk na ci yi gën a garaaw ci tijjil nit ki ay buntu mooy góorgóorlu ci say wayjur al imaamul buxaari rahimahullah boo delloo ci saxiixam dafa ubbi benn buntu mu ni baabu ijaabati duaai man barra waalidayhi buntu bii dama ci fas yéene indi koo xam ni yàlla day nangu ak ñaanam ñu ne waaw kii lu mu def ba yàlla bu ñaanee yàlla nangu ko ñu ne parce que dafa fonk ay wayjuram maanaam yow mi nga xam da ngaa fonk say wayjur boo amee ay problème nga ñaan yàlla nangu ko ci la imam Bukhari indee xadis booba ngeen di yàgg dégg mooy ñetti xarit yoo xam dañoo àndoon di dem ci digg àll bi ñuy dem ba mu yàgg asamaan seeni gërëng rëng rëng rëng rëng di xiin di dënnu ñu gis mu ñuul kukk ñu ne ah comme fii ay montagne la ay grotte la nañ dugg ci biir montagne yi ba taw bi jàll ñu doog a génn mu ni ñoom ñett ñëpp ñu ànd dugg ci biir benn montagne xam nga montagne yi boo duggee day am foo xamante ni am genre pax lay doon rek nga mën a dugg ba ca biir ñu koy wax am xuntu gaa yi dugg ba ca biir montagne ba yàlla mi nga xam ne dara tawu ko rek fekk benn xeer ca kaw moo xabar ñi ko rek di gëlëng la ngi gëlëng la ngi ba ñëw rek ni tay ci buntu pax mi pax mi fatt maanaam montagne moo xamante ni xam nga ni waa dëkk bi yépp bu ñu daje woon tey duñ ko mën a yëkkati te ñoom ñu ngi ci biir te boo yuuxoo kenn du la dégg te nit ñi buñ ñëwoon mënuñu koo bërëng génne te quatre plan yi koy xëcc amuñ fi léegi nu ñuy def xanaa xaar dee ñoom ñëpp ñu ni tekk ci biir foofu lan nga xalaat lan ban solution nga am ban boo yuuxoo nit ñi duñ la dégg xalaatoo ko jéem a essayé ba ma sax doo ko jéem moom tey caterpillar bu koy xëcc amul waa dëkk bu ñëw mënuñu koo génne maanaam daal li lii fi des daal mooy ñun nañ nekk foofu rek banque di xaar dee ñu toog ab diir amuñu benn solution benn waay daal bu yàlla baaxal ci ñoom moo jékki-jékki ba mu yàgg mu ni waaw yéen xalaatu leen ni kenn ku ci nekk ci ñun na tudd lu lu mu yaakaar ni lii moom ba mu koy def yàlla kese kese kese kese kese moo taxoon nga tàllal say loxo nga ñaan yàlla jooy ci loolu ngir yàlla xitali la ah gars yi ñu ni yow wax nga dëgg de su ma yow indi nga xalaat kat kenn ka daal di jóg daal ni yow suñu borom yow de xam nga ne man damaa amoon benn doom bàjjen ma bëgg ko lool mu rafet lool ay bokkam ni ma duñ ma ko may saay bokk ni ma duñ ma ko may ma yor alal judul jeex nag jéem gauche jéem droite ñu ne duñ ma ko may ñu dem may ko beneen góor jamonoy soppeeku ba ndaw sa am problème ca sëy ba parce que jëkkër ji amul dara ndaw si ñëwaat ci man di sàkku ci man ndimbal ndax boo borom alal laa jekku naa sama bopp lool nee na ma wax ndaw si ni ko kaay ñu njaalo maag yow comme bëggoon naa laa takk mënuma laa takk kaay ñu njaalo su njaaloo ma jox la alal ndaw si ni ko loolu dee ma ko gënal daal di jug dem yoonam ndaw si ñibbi ab diir affaire bi gën a tar gën a metti mu dellu siwaat ci man ni ma sama góor teeg maa dimbali ci nangam mu ni ko la ma la waxoon daaw rek ndaw si ni ko loolu dee ma ko gënal ndaw si delluwaat ba affaire bi mënatu koo muñ nag supporté ndaw si dikk mu ni ko la ma la waxoon daaw mu ni ko am problème nan njaala kon nga jox parce que booba mi ngi bëgg a dee ndax xiif xam nga gor day dem ba mu yàgg day jaay ngorom mu wóor ko ne mi ngi jaay ngorom te mënu ci dara moo tax gis nga ñàkk mbokk yàlla ñu suñu borom musal ñàkk day waral nga jaay sa ngor jaay sa dignité jaay sa diine te yaa ko tey bi nga koy def waaye mënoo ci dara nee na bi ñu demee ba làqu fa ñuy njaaloo ma siggi xool ko mu siggi xool ma ma ne ko tee ngaa ragal yàlla bala ngaa tekki jaa jaarab jàmbur nga jox ko àq rek waa ji tiit ci loolu mooy lan mooy yaa ngi laal loo moomu te daganu la waa ji ne na ma tiit bi ma tiitee rek ma daal di jóg solaat sama yére yëkkati li ma ko jox ci alal jox ko ko ni ko demal ngir yàlla mu ne yàlla bi may def loolu yow xam nga ni amul kenn ku ma yilifoon keram xam nga ni aw ma lu may tiit te am naa alal waaye nag ba ma koy bàyyi yàlla rek a taxoon su fekkee lii yàlla yow xam nga ni lii yow yaa taxoon xitili ñu nee nañu jékki-jékki rek seen xeer wi ne dajeet mel ni daal affaire bu ñuy puus ba ñoom ñi ngi seen asamaan si waaye nag bopp ba léegi xajagu ci waa ji ne ah samay bal jeex na kat keneen ki daal di jóg ni suñu borom man dama amoon benn surga boo xamante ni dafa naqari deret naqari deret ba nga xam ne weer wi waaja de ñu xuloo mag moom mu gedd bàyyi fa salaire ba at weer wi dee ma jël salaire ba denc ko denc ko ba mu yàgg aw ma nu ma ko def ma jëm jëndee ko ca xar ya ay xar ak i bay di ko yar yàlla daal mel ni ko nar a def kéemaan xar ya ak bay ya barkeel ba nekk gétt gu rëy man daal benn bis laa toog rek waa ji daal di dellu cinéma xàmmee nga ma ma ne ko xàmmee naa la ko yaay sama surga bu naqari deret ba dawal bàyyi fi salaire mu ne ko salaire ba laa jël si mu ne ko jur gi gétt gi yépp yaa ko moom waa ji ne ko man gis nga lii moo ñu jot jotale woon dama bëgg nga bàyyi sa font yi ngay def jox ma li nga ma amee mu ne ko yàlla xam ne ne salaire ba laa jëndee lii moo barkeel lii lépp mu ni mu buub ko yóbbu joxuma ca mennam xar te waxuma dara su fekkee lii yàlla ma yaa taxoon ma def ko suñu borom xittali ñu nee na xeer wi daal ni dageet lu tolloog lam génnoon ba ñuy gën a seen asamaan si waaye ba léegi mënuñoo génn ñu ni saawaay yaa ci des de ñun dañ ñu jeexal nan waa ji mu ne yow suñu borom xam nga ni man amoon naa baay ak yaay te ña nga kër gay dund ba léegi nag waaye fonkoon naa leen fonk goo xam ne su ma sàmmee ba ngoon jot su ma rattee meew mi balaa maa jox sama jabar wala samay doom sama baay ak sama yaay ñoo njëkk naan benn bis nee na ma wàcc ñëw fekk baay ak yaay nelaw ndax damaa guddee xale yaa ngi jooy soxna saa ngi kaas baay ak yaay ngi nelaw meew maa ngi nii ma ni naa njëkkee jox samay soxna ak samay doom ñu lekk naan ci meew mi ma ni loolu du ay teggin ma ni naa yee sama baay ñoom ñu njëkk naan ma ni yee leen du ay teggin nu may def mu ni ma yore leget gi rek taxaw di xaar ba fajar jot minal layli ilal fajri ba xale ya nelaw ak seen xiifaay nee na sama baay bi mu yeewoo dafa tiit mu laaj lu xew ma nettali ko ko mu ni yàlla su fekkee lii ba ma koy def ormal samay wayjur rek moo taxoon yàlla xitti la ñu xeer wa teggeeku tege fële xadis bi mi ngi ci saxiixul Buxaari du ay nettali du ay léeb de yonent bu ne xeer wi teggee ko tege fële kan moo ko teggi zul quwwatil matin suñ borom mbokk yi baaxe say wayjur rawatina yaay dafay dindi nit ki ay problème gis nga imam bu ñuy wax baqi ibni muxallid imam ju mag la woon ci aymatul xadis dafa toog benn bis di jàngale ba mu yàgg benn maire daal di ñëw ni ko tee nga ma ñaanal sama doom jullit ñi bañ demee ci xeex sàngam daal ba léegi sama doom dellu siwul xamuñ ba xam daa dee xamuñ ba xam dañ koo jàpp man da te moom rek laa am ci doom ju góor te daf maa fonkoon ba nga xam ne fi mu nekk nii métti na ci man lool baq yi daal di koy ñaanal ni ko demal yàlla dina ko indi gis nga baaxe ay way juróom ak ñaan ak góor gu baax googu sabab la ci waa ji dafa jékki-jékki dem ci kanamu buur ba mu yàgg rek fekk ñi ngi ko seene ay chaîne chaîne gi ni tipp dagg buur jàpp ko lapp ko lappa lappa lapp ba muy bëgg a dee ndax jàpp na ni moo ko tey ñu woo tëgg bi mu ñëw suudewaat ko biñ ko suudee ba noppi rek affaire bi ni tipp dagg buur nar koo dóoraat benn go benn paani ko xaaral bu ko dóor teeyal xam nga buur day am ay dakk ay expert ñooy toog di ko wër mooy ay conseil am rek paa bi mu ne waa ji kaay mu ñëw mu ne ko yow lii yaa ko def mu ne ko dee def mu ko dee mu ne ko yow noo tudd laaj ko ay laaj ni ko sa yaay mi ngi dund mu ne ko waaw sa yaay noo mel ak moom mu nettali ko nañ mel ak yaayam ci baax mu ni buur kii bàyyi ko mu dem boo ko fi téye da lay gën a sonal rek boo ko fi téye da lay gën a sonal rek mu bàyyi buur mu génn gis nga nee na bi muy génn bi muy génn yéen a ngi fàttaliku nettali woon naa leen ko fi ci waman yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan nee na damaa génn ma fekk aw fas wu suur taxaw mu ni ma war fas bi bi ma waree fas bi ah ma naan waaw ñoom mbaa duñ ma gis ak duñ ma gis ma geesu geesu gisuma kenn ma rëppatal fas bi mu ni ma daw tuuti dawal tuuti gis ay xara ki bëyee ki nanga ma geesu gisuma kenn ma jiital leen dem saa yoon nee na ma daal di koy indi nee na bi mu ko indee ibni kathir mi ngi nett lu mel noonu di ci di ci sukkandiku de wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqahu nag min xaysu laa yaxtasib ceen nga dagg na yeewi nañ ko ñibbi na war na fas wa jël na jur ga loolu dagal na ci moom nag ndax jamonoy guerre la war gis nga de gis nga doomu aadama saa bu toppatoo ay way juram sonn ci ñoom fexe ba ak lu mu metti metti metti dinaay faral di wax dëgg waaye mais dafa naqari deret waay allahu akbar aka ngaa naqari woon deret léegi comparé leen ñaari naqari deret yii liir boo xam ni mënta wax di xataraayu di jooy te kenn xamut lu mu bëgg ak man mu naqari deret moo xam ne boo ne ko loo bëgg mu wax la ko ñaar ñi ku gën a naqari deret man mi li muy naqari naqari deret boo ne ko lan moo la naqari mu wax ko gone gi moom daal naqari deret à partir boo ko laajee lu naqari mënu koo wax ku mënta wax la naqari kay yaa gën a naqari deret ñëpp te teewut mi ngi la doon muñal li gën a soof ci doomu aadama muy sobe yay génn mu koy dindeek ay loxoom te du la seexlu déedéet gis nga yaay nu mu doom mën a mel bu yàqee tubayam bu defee lële bu amee ay góom buy génn dëtt yépp ñépp mën nañ koo seexloo des yaayam gis nga feebar dina toll foo xam ni wallaahi yaay li muy man ci yow soxna sax du ko def soxna du ko nangu gis nga nit mën naa toll foo xam ci nattu sa soxna laa wax sa yaay lim lay nangul moom mi la jur sukk jur la su boobaa moom rek mooy ñëw sa soxna du ko dootu ko nangooti parce que nit nag ak loo ko jege jege jege jege jege daa am fooy yem ak moom te way jur amul fu mu yem ak doom mbir yi nañ koy bàyyi xel mbokk yi xaw ma yarug taaxa ñu yàq xaw ma ñàkk jàng ñu topp xaw ma nar a alkoo ñu topp ñett yi xaw ma ban la yarug taax ñàkk jàng nar a alko waaye boo seetloo tey ñun ni ñuy jëflanteeg suñuy wayjur ci ngay xam ni nun nun duñ dem fenn fenn duñ ko dem fenn fenn da ngay gis koo xam ni sumwaay lu mu lijjanti du sotti lu mu yaakaar mu tas lu mu bëgg mu mu yàqu ah mel ni sumwaay yow yow yow rek gaaf da laa topp fekk dara dara say wayjur la jéppi rek ci loolu kenn ku teg ci ñu war na koo daw góorgóorlu ci say wayjur day waral yow ah yàlla defal say mbir ba ngay nga nekk koo xam boo ñaanee ñu nangu buñ te way jur bu la ñaanalee mu nangu yonent yàlla ñett ngi ñoo xam ni ku ci ñaan yàlla yàlla dana ko nangu kenn ka mooy way jur wi bu ñaanalee doomam moo tax yonent bi tere nga ñaanal sa doom lu bon est-ce que xam nga ne yaay yu bare bare ñoo alak seen doom su booxul ma la yàlla na nga al ko yow yàlla na nga tos ka gis nga yooyu kenn du ko kafe même boo koy kafe yàlla di ko nangu même boo koy kafe laax yàlla da koy nangu yàlla na nga alko yàlla na nga torox ak yow doo tekki foo jëm na yaakaar naa yéen a ngi fàttali kama leen fi nettali woon yaa ji ni ko doo takk diw mu ni dinaa ko takk mu ni doo takk diw mu ni ko dinaa ko takk mu ni boo ko takkee yàlla na la jaan màtt nga dee gis nga da ko ko wax gi guddi gi mu takkee ndaw si ca guddi gi ñu ceetal ca kaw ga la muy gunge ay ganam rek benn jaan ni ba xërña ci biir ngeer yi rek màtt tànk bi karab la faat jot a yegg sax ci seen maanaam yooyu kenn du ko def ñaanal sa way jur sa doom musiba kenn du ko def parce que buy ñaan muy dal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale ni maanaam nit ki ci boppam saa bu way juram kontaanee yàlla day kontaan bu way juram meree yàlla day mer subhanahu wa taala xadis boo xam ne al imaamu tabari tabaraani solo na ko cheikh nasir albani wéral ko ci silsila hadis asaxixa yonent bi ni rida allahi ah rida rabbi fi rida alwalidayn wa saxatuhu fi saxatihima ngërëmal yàlla mi ngi ko lonk ci ngërëmu ñaari way jur maanaam mbir mi nekkatul ay yow sa yaay sama yaay yaayu diw yaay déedéet mbir mi mbiram yaag yàlla yàlla moo la orienté ne gis nga fi ne dem gi ngay dem jàkk ja dafa dem ba nekk automatique ci yow xalaato dof xalaatoo mukk weeru koor ñëw nga lànk bañ a woor te amoo ngànt yow xalaatoo mukk mukk mukk nga julli te jàppoo te fekk yaa ko tey léegi affaire boobu ni mu nekkee automatique ci yow lan moo tax yàlla mi digle lee moo digle lii sunu borom bu digle lee moo digle lii moo tax kenn ku ci nekk ci ñun mbokk yi bu ko yàlla war sagalee way jur yuy dund na laxasaayu waat na laxasaayu waat bu baax wallaahi laxasaayu gii mën naa waral gis nga tekkee ko xam nga kuñ lëggéey xam nga nit dañ koy lëggéey lëggéeyanteeg defante lu bon ni nit ñu nit ki ñu lëggéey ko ba noppi mu gisanteeg benn borom xam-xam bu xam mu dindil ko lëggéey ba mu dañ mu setaat wécc sawar wallahi góorgóorlu say wayjur mën naa def loolu da ngay gis nit ki soppeeku waat solaat ma neen mbubb solaat ma neen tubay solaat yeneen daal laxasaayu waat nag fas yéenee tërbiyu sa yaay ak sa baay nga daal di gis subhanahu wa taala commencé sotti xéewal yi mel ni ab taw problème yi commencé daw su mu waay mel ni gaynde guy daw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ni même wërsëg sax toppatoo say wayjur da koy yokk nee na man sarrahu an yuzima allahu ris rizqahu wa an yumidda fi ajali falyasil rahima am riwaaya bayaqi mu ni falyabarra walidayhi walyasila rahima képp koo xam ni bëgg na yàlla yaatal wërsëgam ah guddal aw fanam jokkal sa mbokk beneen riwaaya mu ni jokkal sa mbokk te toppatoo say waajur xoolal xoolal wërsëg wu yaatoog fan wu gudd ñun lañ ko bëggee wërsëg wu yaatoog fan wu gudd gis nga coow li muy bari bari bari bari àddina kenn wuti fi lu dul wërsëg wu yaatoog fan wu gudd keese coow li muy bari bari yépp foofu lay dugg àllaaxira wutuñ fa lu dul tàbbi àjjana loo fi wax leneen lu dul da tàbbi àjjana daanaka da ngay bari wax rek borom bi subhanahu wa taala def na ni góorgóorlu ci say wayjur day waral yàlla defaral la loolu te it nag nit ki saa bu góorgóorloo ci wayjuram yàlla da koy dolli sunu borom da di anishkur lii boo ma santee ba pare wali waalidayka teg ci say wayjur maa ngi gërëm diw ak diw ak diw yow xanaa bala ngaa gërëm diw ak diw gërëm kiñ la gërëm loo yow doo def lu la def loo yow da ngay suñu bari ci ñun ndeysaan kañ yi gërëm kenn gërëm loolu la ko diw kay moom ni maa ngi koy gërëm diw kay nangam fekk yow li ngay def sax yàlla sant la ko yàlla kim la gërëm loo muy sa wayjur anishkur lii boo ma gërëmee man yàlla wali waalidayka gërëmal say wayjur leneen loo fi def lu dul loolu na xamal ni ilayal masir boo dee fi nga may fekk gis nga de boo dee fi nga may fekk yàlla dane wa is taadana rabbukum yàlla muy def naa déclaration de lu mu wax mu ne la in shakartum bu ngeen di sant la azidanakum ma dolli leen kon boo sante yàlla sant say wayjur léegi nag da ngay dégg maa ngi gërëm yàlla di gërëm sama ñaari wayjur loolu mooy lan nga yam sa gërëm sa ñaari wayjur yoo xamante ni mën ngaa toog sum waay juróom benn weer yoo xamante ni sa yaay di lekk sa ñaar téeméer nga naan yaa ngi gërëm sa ñaari wayjur gërëmoo tus dara nga deful waxi kese koy nax kan ngay nax nit ñi koy dégg nii dégg ko xam ne maa ngi gërëm sama xam naa kay sama ndam lii kay moom sama ñaari way jur ñoo ma ko may sa ñaari way jur yoo xamante ni su may kenn kontaanul ci yow sa ñaari way jur yoo xam ne kenn ku nekk mi ngi lay subooxul ah léeg-léeg nga gis waa joo xam ne ndeysaan ma ngay sonn di defal nit loo xam ni fekk daldi carax yi baayam mi ngi dagg su mbooy te mën te jëndalu ko maa la ko wax carax ay carax rek jëndalu ko baayam baa yaayam te ma ngay defal lu dul jeex ay jàmbur li may wax lu am la parce que ay wayjur dañ koy jàmbat da nga gis wayjur woo xam ni su mbooy bu soxlaa dara ci doomam sax faw mu am fu mu jaar kalangaat diw teeg ma cee waxal kii kat nangam nangam di fekk gis nga mel ni moom da lay sax te xoolal allahu akbar te moom da ngaa fàtte ni yaag moom yéen a bokkoon li mu amoon tuba yi nga doon solak mbaxana yeeg lamset yi nga doon watoog ah xotti yeeg lu ne lu ne sa wayjur maanaam daal moom alalam moo nekkoon sa alal ndeysaan yow nga lànk ni sa alal du nekk sa alalam ah bisimilah keroog muy sakkan di nga ci xam dara te it nag gis nga doomu aadama mën naa def njaaxum gu rëy a rëy goo xam lakk dëkk bi xam nga leen nit def loo xamante ni daanaka moom lakk dëkk bi ñoo tolloo nga xam ni kii fan lay tuubee ngay wax kii gan tuub lay tuubati toppatoo say wayjur mën na laa fampal bàkkaar boobu imam mag xewal ci borom xam-xami salaf yàgg ya nee na baaxi sa ñaari wayjur de kabaayir xam ngeen kabaayir bàkkaar yi gën a ngande ci bàkkaar yi bokkaale yàlla rey bakkan daw geer tuumaal gor njabar bàkkaar yu ponkal yooyu nga xamante ni moo gën a rëy ci bàkkaar yi imaam mag xul nee na baaxi sa ñaari wayjur da koy fomp ne nit du dañ di góorgóorlu ci ay wayjuram ak nangam ba yàlla fompal ko bàkkaar boo xam ne nan na koo alak ato ibni yasaar ne dañoo toog ba mu yàgg benn waay ñëw fekk abdullah ibni abbas ni ko ibni abbas man de damaa lakk dëkk bi def naa njaaxum ibni abbas ni ko loo def mu ne ko daa am xale bu jigéen bu ma bëggoon ah ma di ko labat keneen daal di koy labat ñooña daal di may dàq may ko kooka fii raa nga jàpp ma ma dajeeg jëkkër ji rek suuj ko paaka mu dee gis nga góor góor góor góor léeg-léeg góor góor daa mën a fiir de aka mën a fiir léeg-léeg góor dina toll ci bëgg foo xam ni am na waaju ma mos a gis joo xam ni dafa am comme doon bëgg c'est que ñu ngay jàng si ci xalqa bi ma bëggee waa ji ma ne ko waaw ah waa kii suñ la ko mayit nag nooy def bu ko diw takkoon ma dama ko laaj ni ko waaw bu ko diw takkoon nooy def mu ni teg xoolal tontuwuma de pour wan la ne lii mi ngi am ba tey tontuwuma ma ne ko waaw ndaw si bu ko diw takkoon nooy def mu ne xam naa ne moom gawma yi dinaa def dara waaye jàng si moom dootuma ko mën a te ndax mënatuma mënumaa ñëw di jàkkaarloog waa ji xoolal dégg nga li mu wax de mënatumaa ñëw di jàkkaarloog waa ji di ko gis gis nga fiiraange fi muy toll ah imam Makhoul nee na abdullah ibne abbas waa ji daal di koy laaj ni ko waaw man de damaa rey bakkan nan laay def nee na bi mu waxee loolu abdullah ibne abbas ni ko hal min tawba ndax dinaa mën a tuub ibne abbas ni ko déedéet doo mën a tuub mënoo tuub lan moo tax sunu borom daal man qatala nafsan mutaamidan fa jazaauhu jahannam ku rey nit te yaa ko tey deetaat bi sa war a mu jeex abdullah ibne abbas ni ko boo tuubee yàlla du la jéggal nee na bi ko Abdullah ibn Abbas waxee loolu ndeysaan ah yaa mu jooy xam ngeen loolu dafa metti nag def njaaxum ba yëg ni def nga njaaxum nga ñëw di tuub ñun la doo fi tuubee nee na man waa ji ne yollos yollos génn dem bi mu demee même pas 100 mètres rek Ibn Abbas daal ni woo leen ma ko waa jaa ngi jooy jooy yu métti te xam ngeen loolu dafa metti nee na ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee mu ñëw mu ne ko waaw loo def nga ni mu ne ko damaa def nii def naa def naa rey nit mu ne ko sa yaay mi ngi dund mu ne ko waaw sama yaay mi ngi dund ba tey kay mu ne ko fi mu toll nii xawma lenn lu ma yaakaar di fi ne boo ci sonnoon mën naa sabab suñu borom baal la lu dul góorgóorlu ci say wayjur kese demal nga toppatoo sa yaay loolu laa xam ci farum bàkkaar bi loolu imam buxaari génne na ko ci adabul mufrad góorgóorlu ci sa yaay ak sa baay comme ni ko xaarifata doon defee sabab lay doon ci nga am tiyaaba yi ku aji màkka donte de moo màkka am tiyaaba yi ku jihaad fi sabilillah donte musoo dem ca jihaad ja benn waaye dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yonent bi man day damay jaayante ak yow ci nañ dem jihaad yi ndax ay tiyaaba laa bëgg mu ne ko waaw sa ñaari wayjur ñi ngi dund sa ñaari wayjur ñi ngi dund mu ne ko waaw waaw ñoom ñaar ñëpp kilaahuma xay ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dellul ca ñoom ñaar ñëpp boo jihaadee ca ñoom sonn ci toppatoo leen di nga am tiyaaba yi ku jihaadi ak ko omra ji ak ko aj màkk allahu akbar benn waaye nee na yonent bi man de dama bëgg a dem jihaad waaye gis nga man ni ma yooyee man awuma kàttan dem jihaad parce que man gis nga ma nii xam dafa nit ñoo xam dañoo feebar ba daanaka mënuñoo dem jihaad mu ne ko gis nga man bu dee xol doo ngay dem jihaad mu ni sama xol mën naa dem waaye xam ngay nii ma mel nii gis nga mënumaa dem mu ne ko sa ñaari wayjur ñi ngi dund mu ne ko déedéet bàyyi faatu na waaye yaayee ngi fi mu ni ko fasalillaha fi birriha ñaanal yàlla mu jàppale la ci nga baaxe ci moom fa ida faalta dalik soo góorgóorloo ci toppatoo sa yaay fa anta xaajun wa mutamirun wa mujahid boo toppatoo sa yaay aj nga màkka ah am nga yoolu aj am nga yoolu umra am nga yoolu jihaad mbokk yi góorgóorlu ci say waajur day sabab yàlla subhanahu wa taala gërëm nit ki day waral nit ki mën a tabi ajana ah taysalata ibni miyaas nee na damaa ñëwoon ànd ak gaa yi najd yi nee na ma def benn bàkkaar boo xam ni jàpp naa ni kat ci kabair yi la bokk ma ñëw ci ibnu omar ni ko ah man de ibnu omar def naa njaaxu def naa nangam ak nangam ak nangam mu ne ko yow loolu ci tabbi sawar mu ne ko kese lan nga bëgg mu ne ko xanaa dugg ajana rek yàlla jéggal ma samay bàkkaar mu ne ko sa waay sa yaay mi ngi dund mu ne ko sa baay mi ngi dund mu ne ko déedéet sa yaay mi ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko wallaahi boo demee di nooyal say kàddu ci moom di ko jox mu lekk te di ko toppatoo te yàlla rekk tax jàpp naa ne dana tax nga tàbbi àjjana fii ak yaa ngi moytu njaaxum gi nga defoon bu mu la dalaat gis nga de waaye mbokk yi xadis bi gën a kéemaane mooy même nit ki su su fekkee way juróom a ko tooñ sax même bu dee sa wayjur moo la tooñ sax laa wax soo mënee rafetal rafetalal loo man ci rafetal rafetalal al imaamul buxaari mi ngi nettali ci adabul mufrad mu ne abdullah ibn abbas nee na amul benn waay bu gëm yàlla am ñaari wayjur ah mu góor góor lu ci ñoom lu dul day xëy rek borom bi ubbil ko ñaari bunt ci ajana ci bunti ajana yi su fekkee sa benn wayjur moo fa des yàlla ubbil la benn buntu ca ajana nee na boo sàgganee ba sa wayjur mere la nag nee na na nga yëg ni yàlla du kontaan ci yow mukk lu dul ñoom dañoo kontaan ci yow waaye lam ca teg moo doy waar wa in zalamaahu donte dañ koo tooñ donte say wayjur ñoo la tooñ foofu nag borom xam-xam yi dañuy wax ni say wayjur bu ñu la tooñee ñoo la tooñ loo man ci rafetal nag rafetal jëmee sa digganteeg ñoom waaye bu fekkee mbirum diine la mbirum diine la déedéet kenn du ci négocier ndax wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi fala tuti'huma yàlla moo ne bu dee liñ la bëgg a def loo yàlla gërëmu ko ndax bokkaay la wala lu ko nuru fala tuti'huma lànkal waaye nag xoolal lànkal ba tax mu ne wa saaxib wa fi dunya ma'rufan rafetalal jëme ci ñoom ndekete wayjur toppatoo ko dafa yëmut sax ci ñu faatu amaan na koo xam ne nee na moom de ay man de góorgóorlu naa sama yaay ba mu faatu góorgóorlu naa sama baay ba mu faatu fi nekk ay sayee fekk déedéet sayee gudde sayee yombut fi nekk ni yow fi yegg yow mi fi yegg sayee woo rek affaire bi du sayee usayd abi usayd muy malik ibn rabia nee na dañoo nekkoon ci yonente bi salaa sallam benn waay mu ni ko man de sama baay faatu na sama yaay faatu na def naa li ma war lépp ba suul leen ndax affaire bi jeex na mu ni ko affaire bi jeexagul de mu ne ko des na ñeenti mbir yoo leen ameel ba léegi yaa ngi ko war def bi ci njëkk mu ne ko ngay julli di leen ñaanal ñaareel bi nga di leen jéggalul yàlla ñetteel bi loo ma sa xam ni seen kóllëre la woon kuñ fasante leen kóllëre boo ko mënee matal matal ko ñeenteel bi mooy koo xam ni sa xaritu baay la woon demal nga xaritoo ak moom demal jokk maanaam ku ku doon jëflanteeg sa baay ci teraanga rek demal nga jàppee ko ab xarit yow it moo tax borom xam-xam yi di wax ni bokk na ci mbaax mooy an yasila rajulu wudda abi sa wëllërey baay nga fonk leen ak sa wëllërey yaay gis nga bokk na ci mooy boo bu ñu amee boru koor nga fayal leen ko ndax mën nañ koo fay bokk na ci bu ñu amee boru niser nga fayal leen ko bu ñu amee boru saraxe gis nga Aïcha benn bis dafa ñëw ci yonent bi saa sallam nee na benn waaye dafa ñëw ci yonent bi ni ko waaw man ne sama way jur wu jigéen dafa faatu te bi muy faatu xam naa ni moom ku bëggoon saraxe la jàpp naa ni bu fa yàggaatoon tuuti dana saraxe léegi nag faatu na te saraxewul est ce que mën naa koo saraxeel yonent bi ni ko waaw waaw sarxeel ko te boo ko sarxeelee dina am tiyaaba moo tax gis nga masalam jàngal nit ki alxuraan ak sarxeel koog te fekk dafa faatoog yooyu yëpp am nay coow borom xam-xam yi juyoo nañ ci waaye am na ca yoo xam ni borom xam-xam yi nangu nañ ko lu mel nan lu mel ni saraxeel sa wayjur waxuma la nag nga naan damay def an saraxeel annuel waxuma la nga naan damay jëndi xar mu weex te am ci mbaa ginaar gu xonq bu déedéet saraxe rek lañ wax moo xam ndox la moo xam leneen loo xam nit ki daf koy sarax xaarisata ibni Nu'man mi ngi noonu gis ngeen ni ko borom bi subhanahu wa taala baaxe woon ci baaxe ay way juróom bokk na ci yi nga xamante ni am na solo lool nit ki toppatoo ko way juróom même bu faatoo di ko ñaanal di ko jéggalul di ko fàttaliku waaye képp kum xam ni kii wëllëreem la mu daal dem jokk ko gis nga benn bi Saabit al-Bunnaani nee na abi burdata abi burda xam ngeen abi burda bu dee abi burda mi ma jàpp doomi abi Muusa al-Ash'ari la woon nee na abi burda ñëw Madina nee na bi mu yegsee Abdullah ibn Omar daal di ñëw ganesi ko bi mu ko ganesee mu ni ko yow xam nga lu tax ma ñëw seet si la mu ni ko déedéet mu ne ko dégg naa yonent bi saa salaam ne ne képp ku bëgg a jokk say way jur te fekk ña nga ca armeel ya seetal ku sa baay wëllërante woon ak moom ah wala sa mbokk ñu sa baay wëllante nga wël nga nga di leen jokk te xam naa ni yow mii sa baay sama wëllëre baay Omar ibn al-Khattab la woon nee na loolu moo tax ma ñëw di la jokk si allahu akbar kon yu mel nii mbokk yi bokk na ci yi nga xamante ni ak ñaax la ñeel nu ak ñaax la ñeel nu ñu war a góorgóorlu waat baax suñu way jur yi yéen a ngi fàttaliku kenn ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain benn bis dafa génn këram daal di dugg ci toolu tàndarmaam jël lii sax tàndarma di yéeg dem ba ca kaw telli tàndarma ga telli xam ngeen tàndarma dafa am lu ñuy tuddee xol garabuk tàndarma tàndarma bu saxee garab gi garab gi dafa am lu ñuy tuddee xol te xol ba ci mën a faj ay feebar yu bari la bokk yaayam feebar docteur digal ko ni ko xolub tàndarma mooy faj sa feebaru yaay bi mu dem ci ta garab gi fekk garab gaa ngi meññ ba ni gësër mu telli garab gi dagg ko xarit bi ñëw yam ci ni ko waaw yow xanaa da ngaa feebar lan moo tax nga gor sa garab gi mu ne ko sama yaay moo feebar ma soxla xolub tàndarma mu ne ko yow bu sa yaay soxlaa xolub tàndarma doo dem seeti geneen garab gu yam mbaa nga bàyyi ba yëf yi meññ mu ne ko gis nga sama yaay bu soxla woon xoli tàndarma yi ne ci tool bi yépp ma gor garab yi yépp allahu akbar kan ci ñun mbokk yi ñun ñun dañuy nëbbu ñun dañuy nëbbatu suñu yaay yi ñun ñu ñi benn ci man man ak yéen fi ne ñun li ñuy am par weer sax bëgguñu suñu yaay yi xam ko xoolal jooju musiba yow amaana bu ko xamoon sax mën na laa ñaanal ñun li ñuy am bëgguñu suñu yaay yi xam ko di ak suñu bàyyi ñun dañu koy nëbbu fi ne nii kenn na ci bëggut a xam sax gis nga bu dee ka yore bel ci ab salaire bëggul yaayam xam lu muy fayeeku te xoolal li gën a kéemaane mooy mën na ko wan ba wan ko jabaram waaye yaayam sax du ko war ak baayam nga gis koo xamante ni sumu waay ah bu dee ku amul bulletin de salaire mi ngi naf na fekk business yi yaayam xamalu ko dara dara la ko xamalu dara dara parce que mi ngi yaakaar ne bu ko xamee léegi mu di ci taw wallahi bu ko xamoon amaana loolu la gën a barkeel ndax génn ñaan gum la ñaanal rek mën naa tripler sa salaire gis nga da ngay gis koo xam ne su mu waay yëkkati defal jàmbur ca àll ba àllaare moo ko gënal mu defal kii nga xam ni mooy yaayam wala mooy baayam wax naa gars yi ma ni leen demal ci sëñ diw mu ñaanal la kooku yàggu fi déedéet fii Sénégal la yàggu fi de siiwu fi woon xam nga lu fi siiwoon demal ci sa baay mu ñaanal la yaay yi loolu lañ daan wax fii laaj leen borom 60 et quelques yi laaj leen leen lii def naa ci benn gëstu li may wax dama cee def gëstu gis nga examen bu ma saara jot wala yooyu da ngay gis yaay jox la biig wala nangam demal sa baay nga nga nga sukk mu ñaanal la. loolu moo fi xewoon ay demal sëñ diw mu ñaanal loolu bi mu xewee yàggut de même bu fi ay sëriñ amoon li fi amoon bàyyi ji moo doonoon sëriñ bi sa bàyyi moo nekkoon sëriñ bi te sa yaay moo la daan orienté demal ci sa baay mu ñaanal la ñun ñun ñii ñëpp dañoo xeeb suñu ñaani baay ñun ñii ñëpp fi ne dañoo xeeb suñu ñaani baay suñu ñaani yaay yow da nga yaakaar fi ne yaa dàq jàng sa yaay tax na fi nekk nii nga xeebuk ñaanam yow sa yaay fi nekk bu fekkoon qul a'udhu bi rabbil falaqam sax setut te góorgóorlu nga ci moom ba mu gërëm la wallahi bu la ñaanalee même bu xulons bi falaqam setut sax mën na laa ñaanal yàlla nangu maanaam mbir mi ajuwul fi nga koy nattee léegi mu des na kenn ku ci nekk mu xool da ngay gis koo xamante ni su waay ah jabaram sax ma ko gënal yaayam jabaram moo ko gënal yaayam yéen a ngi fàttali ko ca fakkul wisaaq fi birril walidayni waa jooja nga xam ne su waay ca université ba la newoon am benn universitaire moom it bu mu gis rek bëgg ko ah ñu ànd mu ne ko tey de balaa bëgg a seet si fekk bàyyam baykat la bàyyi jaa ngi sol benn tengaade mu ñëw bay dugg si ci biir kër gi rek tombeeg bàyyi ji doog a wàcc ci ngàbbu gob bi xam ngeen gob mooy li ñuy bayee bàyyi jaa ngi solub tengaade ngàbbu gob bi ndaw si ni ko kii kan la mu ne ko kii sama surga bàyyi la fekk bàyyam naa sama surga bàyyi ndax bàyyi ji ni mu doyee da yére yi xottee ko rek bi mu ne kii sama surga bàyyi la bàyyi ji ni ko ngani ah xaw ma séeréer la xaw ma tukulóor la bàyyi ji ni ko ngani gis nga ndaw si bi mu xamee ni kii day kàcc bàyyam la dafa xàccum talaata ni ko tar waa ji ci lex bi ni ko góor gu bonee ni yow bay jël sa bàyyi di ko def surga yow kenn du sa yëg yow loolu moo yàq ngoro ga mbir yi am nañu toll foofu am na koo xamante ni fi mu nekk nii jabaram jaral na ko mu génn bàyyam këram wallahi da ngay gis xista bi ñu ma ci mujjee nettali matagul une semaine matagul semaine koo xamante ni sum waay jabaram jaral na ko sum waay mu geddi yaayam ci faaqan laa wax ci faaqan ba yaay ji ni ko bu soobee yàlla sa kër sama tànk du ma du fa tege ba fii may wax ak yow yaayam moo ma nettali loola ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey mi ngi am mooy ay masaib yoo xam ne gis nga da ngay liggéey ba fuuti ah liggéey ba tey baqata ni bàcc te dara la ci yàlla dul barkeel bii amaana doo am dara bee amaana di nga am waa yàlla du ko barkeel parce que lii mbirum diine la nekkul ay mbirum sentiment wala mbirum aada wala waa Sénégal wala waa Ndakaaru mbirum yàlla way jur ak lu mën a mel gis nga boo jàngoon ba ni ar sum waay ñu ni Sénégal yaa fi raw ah te sa baay feru ijji sa baay mooy sa sëriñ ndombay tànk boo mën a yore yàlla mu ne waxfid lahuma janaha dulli min arrahma sa ndombay tànk yi laa bëgg nga puus ko fële te amub yar ci sa kanamu bàyyi allahu akbar gis nga yooyu day sabab nit avancé ci àddina ci wàllu diineem ci wàllu allaaxiraam sàggane ko day war a nit ki tardé nit ki alku nit ki kotos nit ki yàqu moo tax xaarisata bni Nu'maan bi yonent bi déggee muy jàng alquran ci biir ajana dani nii la baaxee say wayjur def ak nit da ngeen yaakaar loolu kenn ko donc ko mën a am d'accord moo ko mën a am bañ xam ne diw mii am na ko waaye am na ñeneen ñu koy am ñoo xamante ni xamuñu leen de ñu ngi raaxaloo ci biir nit ñi waaye xam naa waa joo xam ne ca ay jamono bañ ma ko nettalee day tukki ak a ñëw gis nga bu tukkeewaan ba ñëw teg ay valisam valis yi bu ko yaayam tekkiwut kenn du ko tekki. ak fu yaayam mën a nekk danañ ko jëli même bu feebaree danañ ko xaar bi ma ko déggee dama dama ne ah ndekete kat li arab yi naan fi zawaaya xafaaya wa fi naasi baqaaya ndekete kat ruq yi ba léegi am na ay yëf-yëfaan yu fa nekk ndekete kat nit ñi am na gaa yu baax yuy dund ba tey may la waa jooju nii ma leen di gisee noonu laa ko xamee bu tukkee ba ñëw bu yëpp benn moo ma nettali ci gémmiñam tukki na benn tukki ñëw yére bi mu war a sol mi ngi ci biir walis bi nee na dafa mujj mooy suñu xaftaan yu xaw a simple yooyu moom la mujj di ko sol pour di xaar yaay mu ñëw parce que moom nee na ñemewul a tijji walis bi lu dul yaay moo ko tijji. bu njëkkoon ngay gis première même bu dul salaire bu jot sax xëy na sa première salaire boobu nga ñëw jox ko sa way jur xëy na loolu sax xëy na jamono mën naa dox ba duñ ñu nit ki dee ko def parce que jamono bu nekk la muy laaj waaye xanaa sax boog nga mën a xamal sa way jur lii xew boog waaye am na ñoo xam ne seeni way jur xamal luñ leen daara xaala wala kasiran xamaluñ leen lu tax parce que dañuy lëppatu moo tax dara da ngay alku am na benn waay bu ko mas a def ci taarix waa joo xamante ni way juram la merloo ba way jur wi mere ko génn way juram toroxal ko way jur wi ñaanal ko lu bon dafa génn di dem rek gars yi agressé ko gis nga lii lañ këtt ñaar yi lañ këtt ñaari mbagg yi lañu këtt woot gis nga li jaar ci àddina te taarix mën na la koo nettali te ay seeni àqi waju da nga gis koo xamante ni sumbay fi mu taxaw comme oto bu pante ay pièces am amut fii munut avancer mètre munut dem dara munu koo yore ci ay loxoom lu mu yore mu saaw lu mu yore mu yàqu fekk kenn liggéeyu kenn njabaru kenn yàqu ko moo yàq boppam parce que dafa am yenn xeeti toroxal ak xorñoñal yoo maire bi dafa bari wax maire bi dafa soof gis nga paa bi moom kenn xamut ay mbiram gis nga paa bi kenn xamut ay mbiram yow mii say mbir kenn mësu koo xam ndax yow fii nga nekk sum waaye tànkal nit ñi witt di jooy jooy yu dul jeex te kenn xamul say mbir di gis nga nit ki li muy wax way juróom lépp yaa ko gënoon a doy waar yow te moo la tane kat nag moom moo tax Abdullah ibn Omar wala Omar ibn al-Khattab ba waaja jëlee yaayam wala baayam tungam ko wër ak moom kaaba gi tawaaf juróom-ñaari yoon ñaq tooy xep te naan ko ndax fay naa ko àq yi ma ko ameel mu ne ko déedéet fayagoo ko ko de mu ne ko moom dala daan boot di wër ak yow tey tàpp tàppal di ñaan nga gudd fan waxal sa digganteeg yàlla yow yaa ngi di ko tungam waaye lu ne sa xel mi xam nga li ne ci xel mi kay mooy maire bi kay xam naa moom bu soobee yàlla léegi tey mu faatu kay ma noppalu kenn ku ne ci ñun fi ne loolu la kenn ku nekk ci ñun fi mu ne xala te yàlla subhan mbokk yi way juru am yërmande way jur wu bon rek ngay gis mu naan sama doom yi kay bu ñu dee ma suul leen ma des fi waaye way jur moom kay li muy ñaan moom ma su ma dee bàyyi leen fi moom loolu lay ñaan moom waaye doo gis doom ju naan su ma dee bàyyi fi sama bàyyi loolu doo dégg ku koy wax moo lay wane ni maanaam ñun wayjur yi dee lañ leen yéene ñoom ñoo ñu yéene dund ñoom moo tax Haarisata ibn Nu'maan kenn la woon ci saxaaba yi nga xam ne xudwa la xaasatan li shabaab ci góorgóorlu ak bëgg diine ak birrul waalidayn moo tax borom xam-xam bi di Mahmoud al Masri mu ni hakada takunu ziyadatuk wasilatuk bi asdiqaik bi asdiqaai al walid baada mawtihi góorgóorlu def yii ma wax yépp fexe nag ba sa ay wóllëreem nga fonk leen koo xam ni kii sa xaritu bàyyi la woon rek yow fexeel def ko xarit lépp loo xam ni bëggoon na ko di ca góorgóorlu te muy lu baax rek góorgóorlu ca nga di ko ca dimbali loolu bokk na ci liy dimbali nit ci la nga xamante ni moom mooy wàllu diine moo tax alimaamu dahabi bi muy tarjamal waa ji ci seeru alami nubala dafa wax wax ju am solo joo xam ne tëj na lépp dane kaana dayinan xayiran ah ba pare mu teg ci mu ni barran bi waliday bi walidatihi moom kat ku amoon diine la ku baax la woon ah ku ku góorgóorlu la woon waaye nag ku fonkoon way juróomu jigéen la woon kon lii ab ñaax la woon boo xam ne jàpp naa ni kenn ku ci nekk ci ñu mën na nekk bindaat bu dee koo xam ni ñaari way juróom ñu ngi dund ku ko am na chance bu rëy wallaay da nga gis koo xamee tey ndeysaan mbébétam dëgg-dëgg mooy bi muy yeewu bi muy yeewu ci ay nelaw daa fekk ay way juróom faatu nañ am na koo xam ne bi muy yeewu daa fekk ay way juróom faatu nañ wala kenn ci ñoom faatu gis nga kooku fi mu nekk nii mi ngi la ñee yow mi dese ñaar wala kenn ñee goo xam ni soo ko xamoon yow di nga góorgóorlu bu baax a baax a baax bàyyi ba jaan ja dem na nga topp ca wati di way dóor nag jàpp naa ni ñàkk sans mënu ko weesu ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq xirtal nu ci góorgóorlu ci suñuy way jur ci dabu seen ngërëm fii ak ma ngay dëppoo ngërëmal suñu borom nu ngi ñaan sunu borom an yataqabbala minna innahu huwa as-sami'u al-alim wa an yatuba alayna innahu huwa at-tawwabu ar-rahim wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in